tarawlu leen nu sant soxna jaara ngir moonu may di tax nu sant daara soxna Mariama Bousso ñu di ko wooyee maam jaara mi ngi gane jamono ci atum 1250 ci gàddaay ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo ak atum sëriñ Mouhamadou Bousso di wéy góor soxna Astu Waalo Mbàkke di wéy jigéen ak càllalaam ci wàllu way juróom bu góor bu ñu ko toppee ma nga ñuy yóbbu ba ci Seydina Xasan mi nga xam ne sët la ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam soxna Astu Waalo Mbàkke way juróom jigéen amoon téeméeri ak fanweer ak juróom-ñett dundam nga yëpp mu defoon ko ci jàmm yàlla jàng alxuraan ak jàngale alxuraan taarix di fësal ne moom soxna Astu Waalo Mbàkke dana naafila kaamilub alxuraan ci juróom-ñetti rakka moom Mariama Bousso ñaari waajuram ñoo ko dalal alxuraan mu wattu ko bi mu amee fukki at bi amee fukki at ak juróom-ñeent ci daal di peeg mboolem xeeti xam-xami diine yi diirub am njàngam waaye itam diirub ak tuut tànkam moom soxna Jaara Bousso ràññiku woon na ci ay jukko yoo xam ne ni baaxoowuñ koo gis ci soxna ci maandu ci teey effacé wu waaye itam ci am fullaak fayda diggam ak boroomam waaye itam sàmmonte ak àq yi digganteem ak mbindeef yi moom soxna Mariama Bousso bi mu màggee ci góogile keppaar ñu jox ko Xaadim Mor Anta Sali ci la daal di dogu mel ne mësta tàmbali benn liggéey ci ak dundam ngir Pastef ba nga xam ne fësal na ko foofale ca kër Xaadim Mor Anta Sali daal di mel ne ku xaaj ak dundam ñeenti xaaj benn pàcc bi mu jox ko suñu borom ba mu jeex tàkk lenn mun mënta dox digganteem ak loolee pàcc ba ca des mu jagleel ko àq yi nga xam ne nii dafa dox digganteem ak borom këram ba def ca loo xam ne nii kawe na njortu taarix di boole soxna jaara ci jigéen ñi nga xam ne ñoo gën a fonk seen borom kër ci kaw suuf beneen pàcc bi ci des mu daal di koy jagleel diggante moom ak ay mbokki dëkkandoom mooy ñi mu bokkaloon Xaadim Mor Anta Sali beneen pàcc bi ci des mu daal di koy def yeneen dëkkandoo yi nga xam ne ni ay donga lañu waaye itam ay taalibi lañ ci biir kër gi jox leen itte waaye yërmaale ju mat sëkk joo xam ne nii tax na ñoom ñooñu le kenn ku nekk teg soxna jaara place bopp teguñu fa keneen fonk gi mu fonkoon Xaadim Mor Anta Sali waaye itam jox gi mu ko joxoon gëddaam tax na mësta mooy benn yoon ndigalam ñiy fàttaliku bis bu nekk xissa bi doxoon ci diggante sàkket wa ak taw bu mu ko téye woon ba fajar jot waaye itam di fësal la waykat bi di wax naan soxna jaara mas naa jël aw sémmiñ di xar gaalam ndekete booba day bëgg a tàngal kafek bégal sëriñam loolu lépp di fësal gëdd gi nga xam ne joxoon na ko Xaadimu Mar Anta Sali bi nga xam ne da ca doon jaamoo yàlla waaye itam digganteem ak i mbokki dëkkandoom ñu mu bokkoon Xaadim Anta Sali doy na ca sëkk jaayante bi nga xam ne ni jaayante woon na ko wala itam dogu gi mu dogu woon digganteem ak soxna Anta Njaay digganteem ak donga itam doy na ca sëkk la waykat ba doon wax soxna jaara bu aayee donga yëpp ay rakkaaju dañ garab yi tey dóoru waaye kenn du ca gaañu moom soxna jaara nekkoon soxna su ràññeeku loolu ci àdduna bi bañ di ko tëkkale ak soxna Mariama mi nga xam ne mooy wayjuru Seydina Isa moom soxna si làmboo jikko yooyu baaxuwuñoo gis soxna di ko làmboo ab liggéeyam ca kër Xaadim Momar Anta Sali la nga xam ne bët ma nees na ca tegu ci àdduna bokk na ca leere mu ca am kam fa njëkk am di Serigne Mamar Diarra teg ca Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasuul teg ca Serigne Abibulahi Mbàkke ak soxna Xadi Mbàkke moom soxna Jaara Buso boobu Mariama Jaaratullaa liggéeyam bi suñu borom fay ko lu kawe njortu seere la ca liggéeyam boobale Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul moom soxna jaara génn jamono ci fanweeri atam ak ñett dundam ga néew loolu waaye jëf ji rëy lool ngir mbóot yu bari yi nga xam ne ni làmboo na ko ak pastif ba mu ca def moom soxna su sell soosule ma nga tëdd poroxaan nekkee ci diwaanub Kaolack ci digg réew bu Sénégal ay millions yi doomu aadama di fa dem di ziyaare ji waaye itam di ko fàttaliku ngir liggéey bu am solo bi nga xam ne liggéeyal na ko boromam waaye itam njariñ li nga xam ne jëriñ na ko bindeef yépp ci andil ñu Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul yàlla nañu yàlla fayal soxna Mariama Bousso Diaratou Lah mi soli aw sogunu soom